waajtaayal gamuk international gu Medina bay atam 2023 dor na ci capitalu faydatu Tijaaniya likoy koy Gal di CDD ab ndaje waxtan amal nañu ko niki tay ji ci alxames ji yamok ñetti fan ci wëru ci résidence Abdoulaye Bayero këru gan bay Mahmoud Niass moy njiital COMAF di comité bu ñu denk walum organisation activité ak manifestation wu faydu bi jotaayu tay bi liko waral jotaayu fuuglu Gamu Medina bay ci at mu mi di atu sana hijriya 1445 tolloo gàddaay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy séentu ci guddik fukk ñaar ci weeru rabiul awwal ñu njortu ne dafa war a tombeet moom gàmm Medina Baye ren ak le 26 septembre waaye mënaguñ koo confirmer lu ne wéru sang bu tedd bi sang sang yi sallallahu alayhi wasallam dafa feñ teru wéru woowu nak mën nañu jàpp ne kon le 26 septembre mën nako nek waye mën na nek le 25 septembre mën nek le 26 ci kaw lolu ci ndigalu al khalifa khalifatu sahib al fayda سيدي والدي العزيز الحنون مولاي الشيخ محمد الماحي ابن مولانا الشيخ ابراهيم نياس ci ndigalam oté nañ jotaay bi nga xamné ne ñi ngi ko seq ak ki nga xamné ne préfet bu kaolak muy Cheikh Ahmed Tidiane ciow mu outu fi ñim fu outu ci état andak ak service yu am solo ci maire de bi ak ña ca topp ñëpp ñëw uy bi nga xamné ne serigne bi la muy Cheikh Mahi Cheikh Ibrahima Niass lii solo si nag mooy waxtaan la ak weccoo ay xalaat ndax bi weeru juin tàmbalee ba léegi COMAF comité d'organisation manifestation Fayda Ibrahima Niass Mawlana Cheikh Ibrahim commencé na ay réunion samedi bu jot fii ci Kër Gan ñu jëloon lettre bind ko monsieur le préfet ni ñu wax carnet bi nga xam ne mooy cahier de charge bi nga xam ne li nga xam ne dañ koy séentu ci état Sénégal ci ay taxawaay yoo xam ne sëriñ bi daf koy sàkku ci moom ak mbooloo mi ngir askan wi ak taalibe yi gàmm si ak mbokk yi ak soppe yi monsieur le préfet daal di nangu def jotaay boo xam ne nii CDD may ñu indil ñu fekk suñu fii Medina bàyyi ci kër gan ñu def ko li ñu waxtaanee nag du dara lu may li itteel sëriñ bi muy Cheikh Mahi Cheikh Ibrahima Niass ci jàmm taalibe yi ak soppee rasulillahi ak fuñ ñu mën a bàyyeeko mais jàmm ñi dëkkee Medina Baye ak dëkk yu ko war ak kawlak ak àddina waxtaanee nañ lu aju ci assainissement environnement social communication santé waxtaanee nañ ci yenen ay patch yo xamné ni culturel nga xamné moy walu saqafa ak lepp lo xamné rek da fay jëmee organisation wala pays bu tollu mais pays Cheikh Ibrahima jëm kanam. ndajem waxtan wi nag teewoon na ci mboolem chef de service régional yi nek ci région bu Kaolack mairie ak conseil départemental bu Kaolack yi tamit ñu ngi ci won ci ndaje bi kiko jité won nak modi préfet département bi Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw. ma wax né soné gamu rek daat né xew-xewu diiné day doon. gis-gis bu gàtt dafay doon dégg-dégg bu cëkk xew euh, xew diine la waaye dangay dawal sa bët ci la gën a sore mooy bu fekkee ne diine lañ wooteel itam lañ woote soo ko doon tënk walla nga làmbatu ko danga ca daj yar danga ca daj jàngale kon danga ca daj rekk loo xam ne mooy yokk nit ki def ko muy nit def ko muy gor su ma waxee gor nag aada taxul may wax waaye mooy mu doon boroom jikko ju rafet mooy mu doon boroom taxawaay bu rafet loolu nag ëtt boo koy amee jàppal ne yow mi nga xam ne yaa yore wàllu àdduna wàllu administration ëtt boobu yow lay liggéeyal yow lay jàppale loolu dafa doy rek pour wax ne ci suñ coobare naam waaye ci turu gouverneur ak suñu ay kilifa muy ministre de l'intérieur muy membre yu gouvernement bi yëpp premier ministre ak njiitu réew mi coobare woon nañu ñun ñëpp ngir def lu ñu man def kéemtalaay kattan te it loolu mooy sunu yéene yaakaar naa musuñoo am édition gàmmu boo nga xamante ne nii bu ñaaw la musta am waaye lu taaru fu mu amit lu gën a rafet am na dañuy ñaan itam bépp bu ñu mës a def ci gàmm wax ne wax dëgg yàlla bii neex na bii rafet na ah bu ren bi yàlla na ko dàq loolu moom lañu ñu la ñu yéene loolu la ñu bëgg te itam ci kàttanu yàlla dinañ def taxawaay yu méngoo ak loolu ci loolu lañu soññ service yëpp ñu def taxawaay bu mat sëkk. gàmmug 2023 nag ñi di ko xaar ci weeru septembre ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom lii nag di màndargaal ci biir nawet bi lañu nar a gàmmu tax na nag kilifa yi ne may nañu ko xel bu baax a baax ci biir waxtaan wi. li koy waral nag mooy moom taxawaay du ñu mës a wàcc waaye ci ren gi foog ñu sóoraale bu dul dara ñu bàyyi xel ne euh, ñaar fukki fan ak juróom-benn lañ koy jàppandi mën na doon. jurom nyent mën na doon e, jurom mën na doon ñaar fukk ak jurom mën na doon ñaar fukk ak jurom ñaar waaye ci setu mbar nga xamné kon kon e, li wóor ba wóor moy ci bir nawet lañu fekk lañuy fekk euh nawet nak boko waxé wax nga mbiru suñ borom e, kon bo doon def fukk ci taxaway da ngay wara def ñaar fukk te lolu xam nañ ko waye and ak lolu rek euh, ñu talal ko loxo ci gannaaw sunuy sëriñ euh, ba ñu am newet bu baax bu mat waye bu lewet lewetu ñu def gamu té xelu du am euh, sempi lu ñu samp du am dara lu jëm ci walu mbënd du sonal ñong koy ñaan bu baaxa baax mom mi ñu denko COMAF di comité bi yore walum organisation manifestation ak activité de la fayda bay Mahmoud nias nak ne mu ngi talal loxo mbollem talib cheikh al islam cheikh Ibrahim nias yi jëm ci waajtaayal gamuk international gu Medina bay atam 2023 bi li aju nak ci nga xamne moy organisation bi COMAF mi ngi tatagal mbollem talib bay fuñu mëna ci adina di len ndokel ci fuglu gi ñuy fuglu gamu Medina bay di len talal loxo ci ansaaru waaye ci mboolem daayira yi ci mboolem association yi ci mboolem defkat yi xalaat yu rafet yi nga xam ne dañuy bëgg mu gën a baax ndax sëriñ bi loolu la bëgg muy gën a baax ñuy diisoo di jël xalaat yu sell yi di ko jëfee képp ku ci am xalaat wala looy digle lu rafet luñ mën a jëfee komaaf mi ngi ubbi ay buntam ci ay xalaat képp koo xam ne nii xam nga ne am nañ daje samedi bu nekk fii gannaaw cinq ci ngoon ku am xalaat wala nga bëgg a ñëw participer ci réunion am loo bëgg a waxal comment fol am loo ko bëgg a wattandiku loo wala loo ko bëgg a digal ubbi nañ suñuy bunt comme ni ko sëriñ bi bëggee. lu ëpp juróomi waxtu COMAF comité d' organisation activité de la fayda seq na ko waxtaan nag ak chef de service régional yi nekkee ci diwaan bu Kaolack nag lépp rek jëm ci ngir ñoo amal gàmm gu mucc ay